pour un match. Match, il faut que moi me coup d'envoi. Lamb ji sax xanaa bala ñoo commencé léewtu foog arbitre bi sifflé bu ko defee équipe yi taxaw ñu ne ah, responsable bi moo fi pour autorité yi moo xam autorité sportive yi wala mu ñëw nous ñëpp xam ni nag compétition la لول مو على الخطيئة الأولى ما تشلا ما تشلا ديجنتي إبليس أك الإنسان يلا أي أربيتر ملاك أي دنيا لودل أي أي سبكتاتر بني أي سبورتر Mais Matibil, il fallait moi un coup d'envoi. il fallait que cette lame, la avant avant le match sportif mais le match a démarré il n'est plus sportif mais c'est un joueur sélectionné ndax coupe la dette. moo tax baatu opposition ak baatu adversité ku ko firee safaan bu mu jeex rekk tukkala àdduna diw sama adversaire baatu adversité bi garaawul bu garaawee rek ci ki mu jóge la garaawe moo tax baatu diw sama adversaire la ak diw sama ennemi la moo tax baatu ennemi for na yàlla sunu borom ku ko xam ak mëtam bu ne ihbitu baadukum li baadin aduw ku ne xam na ni yàlla sunu boroom ak ni mu mëti bind ñëpp nan diw wëttul diw sa noon la déedéet yàlla du waxe noonu yàlla du waxe noonu maanaa diw diw sa nawle la ku am nawle nag am lu ngeen joŋante yóbbu ndam intéressé wu ma ci li ma ci intéressé mooy kenn ku ne ma xam yaay kan moo tax yàlla démarche bi mu jël ci wàllu aadama ba def loo ko péché bi moyalla yàlla dafa xam ni aadama débutant la De un débutant base la gën a soxla ci sommet booy débuté ba lañ lay miinal sommet nañu le miinal base ba noppi waaye itam pour yàlla bañ mu nekk enfant gâté enfant gâté ñaar dina ko yomb mooy am lu moroomam amul mumbalee ko enfant gâté dina ko def gis ci moroomam lu mu amagulit muy xaru pour ñu wutal ko ko dana ko yomb te yàlla bëggul ci aadam mu nekk enfant gâté moo tax mu yóbbu ko aljanna pour defar xolam pour du gis ku muy ñee mu yóbbu ko aljanna pour yóbbu ko ci sommet bi parce que ca base ba la jëm mais wàllu proximité la dafa bëgg mu jege yàlla am lu mu miin tuuti bala muy dem ci base bi parce que ku dem ci base te parewuñ la boo watul boo demee ca base ba yàq ñëpp mu tax affaire aljanna du jëmmi neexaay bi proximité mu bañ sore yàlla ba mu defar xolam ba noppi soo ko wàcce il fallait que match bi am te moy am opposé parce que base bi bo amul lu ko opposé xam kan ko ko waxul lan la te nit dafa bañ kumpa tax mu téré ko téré ko waxul ay la te xam na ni bañ kumpa gi dina tax mu jéem seet lan la te ci adversaire am lay njëkk yem pour mu interpréter ko ko te mooy iblis adversaire bi interpréter ko ko mu appliquer ko selon xalaatu adversaire bi juyoog yàlla mu jox yàlla raison ci mu mën ko wàcce léegi mu génn sommet ba pour ñëw ci baas bi pas pour nekk enfant gâté mais c'est un débutant léegi nag mu tënk ko ci benn programme benn séminaire boo xam ni séminaire bi mu ngi tudd Hayyub nu Yaqdaan xale bu war a évoluer te gisul baay war a évoluer te gisul yaay amul bàjjan amul tànt amul nijaay amul mag amul rakk te yàlla mi ko bind ma nga fa mu ne mënul ñëw te war na évoluer ñu tënk ko ci programme tudde ko xay yóbbu nu yàqu daan aji dund joo xam ne yeewutee ko jur qui veut dire que nit amatuma ndey amatuma baay du lay feeg yàlla di la jox élément yi nga mën a yeewoo ba mel ni ñépp amatuloo lay ci ne amuma ndey amuma baay looloo tax ñu indi xayub nu yaqdaan ñaar nag ñëw muy opposition boobule بعضكم لبعض عدو سنو بروم دفا بغ اوبوزيسيون نيك سودنا تي كاو سوف خمو ني دو ووتيك ياو مي كوكو جاروكو باسكو سونو بروم صاح سونو بروم لوتاخ تي القران منان يا أيها الذين آمنوا أكدي وخ يا أيها الذين كفروا سكي بدي كلمي نك نك سنو برام أم نيوكو جمول مي بوتان أكسبت نك راي ولين Parce que qui est C'est le premier opposant, le premier militant opposant. yàlla écarté wu ko mais wax na ak moom mais moom it doful nee na ko yow moom li nga doon xam naa ko duma ko jaawale mukk donte opposé naa la nag waaye xam naa li nga doon duma ko jaawale mukk waaye ñi ci des nag mag ñoom <laughs> ko loolu bu daas il a Parce que pour être opposant, il faut oser. Mais aussi, qui est maturité, mais aussi qui est intelligence, comme nous Donc, il est très intelligent, mon biblis. Le il est très intelligent parce que bi mu a le ni ko kenn mësul gis ci laa bokk ah naam ci laa bokk yàlla ni ko wax bi mu ni waaw wa id qaala rabbuka lil nga wax bi malaaka yi nga ni nañu sujjoot te man duma malaaka ne ko amee ah, fekkee waral ay gaaf bu doon danga nekk jinne kese kese kon fa nga bokk rek ngay toog mais li lay indi fii ma lay xam ne lu leen concerné concerné la mu bëgg koo def euh, débat intellectuel yàlla xam ni coow lay bare mu dagg ko ñu werante wi jaru ko léegi daal opposé nga jeex na match bi commencé na léegi ko baadukum ihbitu baadukum li baadin adu mu des nag interprétation adversité bi ci boppam mooy li ma leen wax léegi nga ni diw sama adversaire la ak nga ni diw sama ennemi la parce que adversité lu naturel la parce góor adversaire u jigéen la mag adversaire au halala. la adversaire au yaram mais la cohabitation c'est plus que nécessaire mais cohabitation là entre moo comme le comme le ku ci ne na jàpp ni budul moroomam du dem ruux kese ci kaw suuf yaram nekku fi mu alku génnal ci naaj wi nii solo dàll rek dox ci ci kaw goudron bi luy xew ba doxee tuuti bu dul ku yàlla waajalal boppam léegi nga gis mu topp kere gi

góor noonu ak jigéen mag noonu ak ndaw ku ci ne am na loo mën a servir ka ca des mais ay adversaire la ñu nag kon c'est la cohabitation mu des nag benn affaire ki nga ni sama ennemi la baat bi lu ko indi ak mooy lan parce que diw sama noon la mooy lan ñu bari firee guñ ko noon mooy lan ennemi bi la ñuy laajte ni frère gi kay waxuñu ko <laughs> ennemi gi mooy lan lu tax mbubb mi ngay sol muy benn mbubb bi te ni lii mooy biti bi lii mooy biir bi

waaw xam nga mbubb mi yaa ngi naan ah dañ ko def broderie fii mu rafet nii nangam nangam ñaw bi c'est très joli nangam boo ko doon benn rek mbubb mi dootu la nuru dara donc c'est le sens opposé mais ci biir loolu nag di ñaari niveau diw sama ennemi la ñaari niveau la ki nga xas jàpp ni sa noon la bala ngaa indi baatu bañ na fekk ne marge bi nga am ci cadre sip jeex na bala nga ne bañ nit war na fekk ni sip nga siba sip ba amatuloo ben marge de manœuvre te sip du walu xol walu jikko la bañ nak walu xol la parce que xol day antu digantu. nit bala xolam digantu nit war na fekk ni sib naa siba sib ba amatul marge yu manœuvre sib nag mooy jikko sib jikko nit jeex na xanaa kii sol mbubbam ba mu war rafet sax nit yor potit fële nit kii moo ca waay mu ne waay yow taqal nga ma waaye taqal nga suma mbubb mi ndax potit te pourtant potit kat day setal waaye la muy setal pareegul te la deñe ca la muy setal mu nga ca ma kon bu taqaatee bi set fokk ñu setalaat ko daw ga ngay daw nag way bañ mu tis la mooy sib gi léeg-léeg nga daw nit fekk bañoo ko jikkoom nga sib moo tax moom itam bu mu nit diw daf ma bañ naa ko bañ déedéet na seet li tax mu rejeté ko moo tax foofu ngay xamee xayrul bariyati ak charrul bariya inna alladina amanu wa amilu salihati nag ulaika hum xayrul bariya bokkul ak ñu jëkk ña إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة يلا بنيولين دفسيب سنجكو خير البرية يلا بقولين ها دف نو سنجكو looloy tax nag boo demee di sib nit ndax jikkoom di sib nit ndax jikkoom ba sa marge yi jeex dootul nekk problème mu jikko problème xol lay doon waaye bu xasee ba nekk problème mu xolit li wolof wax mooy ñëw mooy rey sa noon nga fexe ba yey ko moo gën mu mel ni nag adversité kon exactement là la tentative la bu échoué xaw ma ndax dégg ngeen ko wala det tentative bu échoué la ki nga di pour sop ko faf cofeel ga de jaarul yoon ñaka jaar yoon ga tax mais lolu la da nga def tentative mu échoué bour nak lo nek nek collaborateur am bo de pour renverser ko bu échoué luy xew voilà yalla it non la mel de tenté ci cadre amour échoué mu gis ni amour amul est un am renversement bobu il faut que mu mu pénaliser la waaye nag mu bañ ñu jël adversité yàq ci dund jël nooneel yàq ci dund kenn dootul def lu sotti ndax nooneel dem ba baax yépp yàqu dem ba jikko yépp yàqu dem ba alal yépp yàqu dem ba jàmm yépp yàqu ndax nooneel te nooneel benn rek a ca valable bu war jar nit reyante mooy ku noonu yàlla ku noonu yàlla walla mu noonu cause bu yàlla am defanteeg moom jaadu na waaye teg ko ci yàlla te bu boobaa yey mooy gën a nekk sa priorité rey looloo tax yàlla pour bañ nit nek en perpétuelle lutte xam nga la <laughs> ñu ngi di netali demb Copto que que pense la toile sur laquelle Picasso est en train de peindre il me cache il me cache, il me salit je xam nga Jacques Maritain c'est une façon je suis train en combat avec quatre démons des plus puissants et des plus malicieux moi de qui vous connaissez les infirmités. Marna non, binga amalte, amal te gisoo ko xaw ndax dégg ngeen wax bi dafay am solo noon bi nga am te gisuloo ko te mu teelaa nelaw soppe bi nga am te gisoo ko mu teelaa nelaw moo ko gën jàddu kon nag bu iblis dee noon gisuloo ko it jar nga fàtte yàlla mi sa soppe te nga sopp ko te gisoo ko ndax yuminuuna bil xayb bu noon bi tax nga fàtte ki nga sopp moo tax nag yàlla di defal nit apprentissage bañ mu mu verser dundem yépp ci adversité ba liñ ko doon doyee yàqu tax nag mu koy entraînement bu neex waay pour nit xam ni ndekete am na lu nga xam ni jarul yenn yi du jur mbañeel yitte rek la war a jur bu yitte mu jeex ci cadre entraînement boobu mu commencé di ci préparer nit ni ko li ci sa kaw nii lan la mu ni ko sama bopp la mu ni ko looy doye bopp bi mu ni ko ci lay xalaate mooy tax ma mën a am tranquillité gis li ma war a gis ni ko ah mu ni ko kon nag baax na ni tekk ba ci yàgg rek roof bopp bi metti ñoo tudde sudaa u rës di ko tuddee migraine dañ lay jékki-jékki jël li ñoo tuddee migraine def ci bopp bi bopp bi naan raw raw raw fu ne mu daw jëm fa waaye sama bopp bi waaye sama bopp bi waaye yàlla arrêté wul naka lay nekk naan sama bopp bi di tawat rek yàlla arrêté mu daal daw dem seeti benn garab parce que xayub na yaqdaan la comme yeewutee lay jaar ba rek le problème fu ne garab gu mu jël laal bu laalee bopp bi naan raw mu toxu ca geneen garab jël ko bu ñëwee ci biir jël reen bi mu ni raw mu dem ca bële jël xànc ba mu ni raw mu dem ca beneen ba jël xob ya xooj ko naan bopp bi sedd mu xam ni kon metti metti bopp bi du noonam yitte bi mu def ba stabiliser ko mooy farataam mu jóge fa fu bopp bi neetee raw rekk mu jubali directement ca plante ma mu calme mu dellu ci yitteem mu toog tuuti tuuti bët yi bas mu toog ba ci yàgg laas yi dugg gisatul yàlla lii nag yàlla lii nag yàlla ni pat bàyyi rek mu dem bët yi commencé di enfler ba suulu gisatul mu mujj di làmbatu muy lu ñoo tudde wànnent mu daw ca garab gële làmb diw ci bët yi bët yi gën a rakkaaju mu dawati ci di ko def ba yegg ci genn garab naka la ko jël diw ci kaw bët yi yëg ni yëf yaa ngi commencé di wàññiku bëgg ko def nag yëf yi nit nag bëgg a diw lu ëpp yëf ya dugg ca yi saf mut kaddi kaddi day toog ba mu dañ sànq mu toogaat ba ca kanam mu jëlaat tuuti laal tuuti affaire bi commencé di tanewaat def ko ñaari fan ñett wànnent ba dem mu gëm ni ndeke wànnent du du noonam yitte bi mu def ba vaincre ko mooy faratam mu toogati ba ca yàgg doon noyyi noyyi bi neex oxygène bi dugg muy kërëb kërëb bi jékki-jékki rek commencé di fatt bakkan yi commencé fatt commencé di sotti ndox mu ñaan fii fii mu jig muy jàpp di ndekete boobu sot ñëw na sonal ko sonal ko mu daw fu lu ne mu def ko diw lu ne def ci bakkan yi rekk euh, fottal ñi ko muy dem ba faf yem ci benn garabu mànt jël xob ya def ci biir toog tuuti yëf yi commencé di fattan ñi ko mu ne ah, kon bii mooy réglé bu bakkan fekk bokkul ak ba mu réglé woon bu bët bi bokkul ak ba mu réglé woon bu bopp bi mu noté yëg ni ndekete soj du noonu yitte bi mu def ba vaincre ko boobu rek mooy faratam coono ba mu dañoon ca bu jëkk ba bu sojaatee du ko daj nga xàmme na léegi garab gi noonu la ko toppe benn par benn ba ci put yàlla may la aafiya nga ñëw ñu tegal la sa añ nga tibboo bu baax dugal mu jaar fa mu war a jaar ndànk nga sant waaye boo toggee tuuti moom it bëggul yëf yi marché noonu مخي رك دف daf jox la waxu muy nga xam ni ku la ni ceeb baa ngi ni sax nga mere ko ku la ni yàpp baa ngi nga mere ko ay ruy ak yii rek ngay bëgg ndax dana fekk fii boli gi mel noo xam ni kole même wanaasu boo ko defee sax mu bëgg la yóbbu laax la nga ne waaye fu ma jëm waaw waaye sama boli gi nga dugg fii jël ci meen yi fii mu lànk mu dem fële jël reen ba fële topp ko topp ko ba yem ci benn ña fekk ko mu dikk xanc mu jël xanc gi daal di koy yeew fii ci baat bi toog tuuti yëf ya di dem ba mu xam ni bu amati angine day jubali ca xanc gi jël xànc gi rek def ko ci noonu la ko topp ba ci biir ak appareil digestif bi ci biir ngay lekk muy rees ci sa jàmm nga xëy ulcère daal di gane si dootul nangu nga lekk ne n'importe ko boo lekkee lu am acide bëgg a dem laaxira ngay rey sa bopp di dugg di génn ba xam li ngay war a mën a def pour ulcère boobu nga faj ko waaw te reenu papayee ca la bokk yooyu yëpp benn par benn benn par benn xol bi xol moo yor nit xol bee yor yëpp a ah, li ma maa la bëgg sama xol bi di di sa dënn maa la bëgg sama xol bi di tiitaru xëy xëy rek karjaak ñëw ñuy seet na fi korjaat bi commencé ba fi muy jeex ak ndax lu ñu mën a saafara la wala déet moom nit moom nit moom nit ba yàlla wan ko lu mu war a mën a faj ak karja bokkul ak appareil yi lu ci ne benn par benn benn par benn ah, ba jóge ca yooyu loxo tànk ak yépp bu ci ne yàlla am yu mu ko nattoo léeg-léeg sa loxo marché sa tànk marché nga xey bis paralysie ñew wala li ñoo tudde polio le polio mi ñew japp la ñu jékki-jékki rek ñu ne sey cër bañ na manatul dox ba nga mujj ci ay fauteuil roulant mënoo ci dara yooyu yëpp mais bu ci nekk yàlla bëggul nga jàpp feebar bi comme noonu yitte bi nga bëgg a war a def ba vaincre ko moo ko intéressé parce que feebar bi nit ñee ko gis mais pour yàlla feebaroo laysa ala al ama xaraj ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج yàlla nee na boo toogee ci fauteuil roulant nit ñee gis fauteuil roulant bi bu fekkee ne sa bët dafa muru ba nga yor kaan ñu naan kaan blanche nee na nit ñee ko gis man gisuma ko parce que amna luma jakarlo ci yow lo xamni fek yakku yàquwul rek bax nga pour man motax ter yu wàññi ko amul solo xol bu yakku motax tax fil jismi mudra اذا صلحت صلح الجسد كله وهي واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب yonent bi nee benn membre ngi ci biir nit boo xam ne bu defaroo nit defaroo waaye bu yàqoo nit yàqu mooy xol moo nit bu xolam yàqu rek leneen lu ñëw na ko sante yàlla looluy tax ñaari bat nak di jaxal nit ñi kuy fajj kuy fajj kon docteur lu muy def day safara day safara safara du ghaya wasila la bi ci alquran sax man nga ko def safara nan ba noppi de do wer walay xamal ni fajj gi borom la am moo tax al ilaaj ak ashifa bokkul soin soin de santé ah, bokkul ak guérison moo tax buñ naan guérisseurs yi wax bu yàqu la ñoom it ay médecin lañu rek ay guérisseurs ñu ñoo tudde guérisseur yàlla mooy guérir mais ñoom it ay médecin lañu rek dañ ko nekk ci beneen fan moo tax wir ak am aafiya bokkul Les ak am aafiya kana ko ci une rencontre ben médecin bu ñu interviewé tout dernièrement diko lak nan médecine ci troisième millénaire ak avancement préconiser ak yu mel journaliste maanaam mu wax waxin bu nga xam ni day firi li ñuy wax ci wolof naan ku ñuy yërëm ngay wut lu téere gémmiñ ku ñuy yërëm ngay wut lu téere gémmiñ bi ko waaja laajee affaire médecine ak yàlla lan la ñu préconiser comme avancement mu ni ñun dañu constaté lu nga xam ni daf ñu xaw teg kersa

jangar-jangari la yóbbu ba ca hôpital bi ñu jël appareil yëpp teg fu ne ni gisuñu dara parce que sa maladie c'est imaginaire loo tax sunu boroom indi ci li gën yéeme te moo di li wolof ji wax ni ku sa xel dàq foo làqute la ku sa xel dàq rek foo làqute la xam nga bari na ku te dara dàqu ko xam nga di dox naan wuyaay wuyaay ñu ne lan la te li la dàq kim gisu ko parce que li la dàq newul ci biti ci sa biir la ne moo tax walladi atmau an yaxfira li xatiati li ibrahima ñaan yépp بابو موتاح مو ام شانس رب الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني وين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي باسكو بوبو بوي ييب داني تا بوبو ديس نيت دو ام جام يالا ما بيند te binduma rekk bërgël ma daf ma bind orienté ma ca la may jariñ kon sant naa ko mënoon na ma orienté te du ma jàppale waaye la may dunde bu dee xeetu ñam bu dee xeetu naan jox na ma ko ba mu doy yutimuni wa yasqini kon sant naa ko moo ma jox yaram waaye léeg-léeg yaram ma tawat waaye bu ma tawatee la may ma wir ca moom lay jóge kon sant naa ko kon xanaa mënoon na yem foofu waaye lu tax mu ne walladi li xatiyaati yowma di ki la jox yooyu li war yépp mu def ko ba noppi boo juyoog moom bu keroogee sa xel dak na la te ko sa xel dàq foo làqute la koo xam ne li ko war yépp def na ko li ko war yépp nag laa wax bind na la te bërgalu la orienté na la ci li lay jariñ toogul xam na ni dangay dund kuy dund fokk nga lekk fokk nga naan loo war a lekkeek loo war a naane mettre na ko à ta disposition kon wàcc na xam na ni yaram dafa wér di wéradi waaye boo wéradee jox na la tegtal boo mën a fexe ba saafaroo kon wàcc na waaye yooyu yëpp mën na am ba noppi moom mi la ko defal boo juyoog moom bu ko roogee sa xel dàq na la te ku sa xel dàq na foo làqute la waaw tax gis nga mag ñi parce que garab feddali yaakaar la parce que xam nga lu lay jaaxal mooy médecin dina tiim ku nekk dans le comment ba wax ay bokkam ni leen kii li ko dese barewul ba noppi moom mi ko waxoon njëkk dee te bi muy dee dara jotu ko ma xamal ni febar jotewul ak de de borom la am calendrier la ku ne am nga ca sa dat li kullin ajal fa ida jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu saatan wala yastaqdimuna mais ajal bi nu mu demee ajal bi calendrier la mais calendrier bi kenn bindu ko ci iraada yàlla la aju moo tax malaakaak dayoo mag liñ ko jox yépp ci ay pouvoir manu la ray ta yàlla décidé wul malaaka laa wax kon nit waxe noppi kon ku la ni dinaa la rey xaaral rek moo médecin bi leen ni ki nekk dans le coma léegi mu dee ba noppi njëkk koo dee wala xamal ni newul ci loxom am na ci loxo keneen ku mu ne allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى دا يالا موم ماندو باسكو دا فاي ام فوغا خامي ييرمبنديم مو اوب بريوريتي دوغالام موتاخ دو بيند اب دوكو بيند buñ le ne ne am nga sa calendrier yi du ko bind ndax yërmandeem mo upp doole dogalam ta bu sa ñun boko ñane guddu fan mu may lako motax bëgg bind allah ya min ndeysaan mu ne yàlla nañ ko yalla defal te mo and ak njub te ak mbax te ak leer yërmande ji moo jiitu moo tax bu sañoon boo ko ñaanee gudd fan mu may la ko moo tax bëggul teel a bind waaye moom itam pour que nga encouragé ko ci mu may la ko foog mu joxañ la yiw ndax bu sañoon boo guddee fan yiw yokk moo tax boo ko ne dama bëgg gudd fan mun la saraxeel ku fekk ku mëtlewul nga dolli ko lu mu mbottale yow it yàlla mottali la moo tax li gën a bon ci àdduna mooy di génn sarax di cee yéene nga yóbbu sama waay moo yiis ci àdduna te ñu bari loolu la ñuy def wëreelu ci bopp bi juróom ñaari yoon jàng lu ne yóbbul sama ay dem jox jaamur ah hein? erreur le, c'est méchant bi c'est méchant moo tax gis nga yooyu sax genre sarax yu mel noonu pour gudd fan tuddul sarax du sarax parce que yàlla digalu la ko looloo jar a xam parce que xërëmkat bi walla seetkat bi moo ko seet wax na ko kon yàlla digalu la ko du sarax fidya la njot la njot njot ak sarax bokkul xamoo tëbaski sax njot la tëbaski sax njot la du sarax jëmmi tabaski ji njot la waaye boo ca génnee nag jox ko amul tabaski sarax la xàmmee ko baax na jëmmi te renn bi njot la boo génnee ca yàpp wa jox ko amul tabaski sarax la ah boo fa day naaxu moo tax toujours sax war nga booy rendi looy génne yu mel noonu nga tëri nga tari aaya boobu ci paaka bi ndax moom lañu ñu joxoon yoon jot ismail ca xarma wa fadaynaahu bi dibxin azimin waaw war na fooy rendee lu mel noonu yéene ca loola ci sa borom nga wax aaya boobu wa fadaynaahu bi dibxin azimin waaw moo tax rek ngay xam ni yàlla sunu borom ah ñun ñu ngeeg sunuy pharmacie mais moom it mu ngeeg i pharmacie am waaye moom it pharmacie it du rekk noonu n'importe quoi rek foo jóge ñiy tiitaru tiitaru mooy li leen seen cheikh doon nettali ca gàmmu Tiwaawan ba yàlla ku tiitaru rek la bañ góor ga doon tiitaru tanaan ko li ma yàlla may ci jaan ak jiit bu ma leen jàpp ba bàyyi leen suñ Cheikh nee man ku ma mos a wax loolu ma seetlu la ma góor gi di ko wax rek ma dem seet jiit bu mag daal di ñëw ne ko góor gi jat ko nee na mu tiim ko jata jata jat ba noppi rek nee na teg loxo bi ci kaw jiit gi mu ni ko raw nee na mu dawale loxo ba di ah dama yaakaar dama am lu juum ci jat bi eh, ma ne ko tàmbaliwaatal nee na mu tàmbaliwaat ñaar wax wax ba noppi nee tegaat loxo bi jiit gi ni ko raw mu dawati waa moom ma dama fàtte yi nee na def nii def nii ba jàgg nee na ma ne ko xëy na danga ko fàtte ñette waaye nee na ñetteel ba nag mel ni jiit gi dafa mer nee na def ko ko façon bu nga xam ni nag neena na mu xulli bat yi man ko yàllaa xamuloo yàlla bëggul ku tiitaru waxin la ndax xàmmee kuy wax fekk dafa wóolu boroomam ak kuy wax fekk day tiitaru bokkul moo tax ñu ngeen ko amee ci seen thérapeute yëpp en pharmacie noonu la ko yàlla amee parce que pharmacie bi mag bi nga xam ni mooy ravitaillé mooy alfatihatul kitab mooy ravitaillé garab yëpp yi ñuy faje nit yëpp juróom-ñaari aaye yooyu moo koy ravitaillé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 luy jàngoro deun ak lu aju ci deun wa yashfi sudura qawmi muminin dana ko safar lépp lu nga xamni membre inférieur la bo ca febré wa nunzilu min alqurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin mo kay safara lépp luy jàngoro wax wala lu jëm ci nopp wala yooyu qul jaatkum mawidatum min rabbikum wa shifaun lima fi sudur moo koy saafara lépp lu nga xam ne jàngoroy biir la estomac ak ya ci aju yépp yaxruju min butuniha sharabun muxtalifun alwanuhu fihi shifaun linnaas moo koy saafara bu dee feebar boo xam ni nag xamuloo lan la mu ngi metti mais xamuloo lan la wa ida maridtu fa huwa yashfini moo koy jàngoro luy jàngoroy bët ak wàllu gis fa kachafna anka gitaaka fa basaruka al yawma hadid juróom-ñaari aaya yi ak juróom-ñaari aaya yi fatiha ñooy ànd moo tax bu la fajul leneen du la faj ah am na ndigal bu ma leen ko dul woon jox ndigal duma ko jàng man duma yor dara di ko denc moo tax ma suma di jublu ci dara di yor kurus sama xol lay wóoloog sama boroom rek moo tax boobu baax na waaw ku ci wut ku ci yor soxna te bëgg soxna ba ànd ak yow ci teraanga ànd ak yow ci yëw ànd ak yow ci muñ te du la yàqal bu fekkee ni yàlla nangul na la fexeel ba am sër bu weex ci moom bu mu moom mu weex tàll te amul gàkk-gàkk mu jox la ko nga toog ci jàng suuratu yaasin barkeeloo ko ci yonent bi def ko sa digganteeg moom muy adiya bu ndaw sa raxul seytaane seen diggante yàlla mën na koy raxatal rattaxal abadan sër ba danga ko koy jox mu denc ko ci biir armoire dootu ko woddoo nag da koy garde rek mu aar la ca des ah, moom moom moom sër bi waaw nga delloowaat ko ko nag mu denc ko nag waaw waaw waaw ah ya, ok looy jënd sër ah looy jënde sër du ko mat ah san isan chet tit tit tit bu sa soxna tolloo ci diggante jëm ci war a mucc waaw nga jàngal ko fa lamma taghashaha hamalat hamlan khafifan fa marrat bihi fa lamma athqalat دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين nga jàngal ko booba wala ko ida sama un shaqat واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت آه، اوكي فوف غيام آه، باخنا سي جيجن جو تولو سي متو بوكو يالا نارالي يو واي لو سي جانجيت خمان يالا يدف يو دفو ما واخ لين كو ليغي نك اه lo cey def nak yalla ay def way defulo mo wax nak bu ko nammee fa khairun bu ko namul nga xam ne nammu ko xanaa yooyu mënees na cay jàppandi amin incha allah amin waaye lay ndeysaan اللهم امين كان بارك الله اللهم امين كان جرجف كان جرجف كان ولا ديسان الله باخنا ديسان الله باخنا وكان دفي بودي يو ملني اي جونرو لو ملني كانسير اي كانسير دا ngay جيل لو ملني سوره مريم ولا كو خوبو بابا يا كرينو بابا يو ولا ندي بولي يالا مانا دي سودر بوكو يالا نامي mën nga ko ci faj waaw bu fekkee ne affaire sida la nag ah saar bi yëpp dañ koy bind waaw waaw di ko naan waaw ah, kay waaw ah, waaw ay ah. saan eh, papayo bu fekkee ni eh, baat bi ma wax léegi dee cancer ci nga koy def bu fekkee ni sida la nag nga jëlaat suratu Mariam ak kadd kadd kadd waaw ah, kadd garabu kadd yii ah, nga jël ca reen ya jël ca xànc ya jël ca dég ya waaw ah, yooyu yëpp mag ñi danañ koy faral di def ndeysaan waaw تبقى يا لنمي بس كالمشيئة الكبرى مو عمك المشيئة الصغرى لمن شاء منكم أن يستقيم فإنك وما تشاء